Alizé 2 sama rakk la sama xarit la sama doom ndey la sama lépp la kooku bu ma ko jàppale ma ko war a jàppale bu ma ko jàppale ma ko war a jàppale parce que sama bés daf ciy mel noo xamante man dootuma ko xàmmee dama naan kii du Alizé 2. lan nga ko wax ci combat dal rek waaw dal bu dalee rek budul waaw wax naa ko léegi léegi waaw.

wax ko bésu làmb ji mu dal bu dalee rek ñu gis lu ñu neex. boo gisee lii lii fair play la mooy wan ne ñun ñun ñu ngi ci làmb ji defuñu ko sax pression yàlla pas de pression dañu am ndam bu soobee yàlla dimanche ñëw feeral si ko barke Mouhamed dañu am ndam bu soobee yàlla Alioune Seye xamul tax dégg nga déglu ma la nit ku baax la nit ku baax la nit ku yëg nit la xeebulu kenn bisam Alioune Seye amul benn mbër bu def amul presse du ñëw yow xam ngeen loolu benn bi xol bi leer na.

lambam yàlla tudd mu day yeex mais kon bu doon tey bu doon ay qualité bëre champion Alioune Seye weesu na fii mais nangu na ko ànd ak booy ànd ak ay rakam gunge leen ba tey yàlla indi ko grand combat du ñaan yàlla muy combat bu gën a sedd moo ëmb seen junior yàlla may leen ndam nit ku nekk ak li dal xelam rek lay wax comme nee na par bu duggaa géej waay waaw am problème bu duggaa dee géej waay am problème lat maa ngi lay nuyu maa ngi fay sama gay de sant a baax ginnaaw sa combat ak Boy Niang ba ah, fan la Lac de Guiers toll. man rek man maay mbër bi nga xam ne ma am sañ-sañu ak fit taxaw di maye sens mais ñeneen ñi nañ maye sens.